How you doing? I'm good. What's good, my G? What's poppin'? Okay. Y'all cool, huh? Yeah, right here. That happened. Let's go. On est là, on est là actuellement en direct de 6S pour la préparation de demain. Euh, avec le Golden Boy of African Music macha allah si dinañ ci doomu dayoon en préparation lan ngay wax suba gaañi lay seetaan. yes. waaw ah, suba la incha allah. suba la suba incha allah. suba la suba. Ah, direction New York le 10 incha allah lan nga ciy wax African Sama Jam African Live Jam. le 10 le 10 incha allah New York City. Amen. Ah, yeah. Yeah. Man, uh, uh 24 septembre aussi maa ngi dem Stockholm. ca arena ba. arena bu mag waaw Stockholm incha allah. micro waaw. jaajëfal ci. African live jazz, African summer jam. Lumière, lumière. <laughs> sama gars yi. waaw nga nangu na suñu làng yaa nga dëgg de yaa yaa wut sax daa jëfati maa ngi bëggee maa ngi bëggee moo fay. baamu léegi la ñu jërëjëf waay jërëjëf waay lay lumière bi lumière bi waaw sama waaw Allez, merci beaucoup. Yeah. Hey, hey, oh, yeah. ah non non non. so so yàlla so so yàlla yàlla ko. jàng maa ma jël ko. maa ma jël ko aywa ini ini. yàlla naa ko mandam ini. Dua nyadar lah. Asyik. Nak apa? Mau kerja je. Tengah kau ni. waaw waaw waaw waaw woo nga ñoom Lora woo nga ñoom Lora Est-ce que tu peux voir les assurances des caméramans Ah si, si. Voilà, je pense que on va faire ma ne. jàmm rek allah incha allah incha allah jërëjëf kontaan naa yaa ngi fàttaliku may nelaw fee nga ñëw fi ma ñëw nuyu la. am benn boy bu dëkk Seefaat ci sa garde corps yi la bokkoon. macha allah. jërëjëf amal jàmm. yàlla na nga wér. waaw yàlla na la yàlla may wér. amiin nga jëm yaa ko xam yàlla na nga fa egg. amiin père lii moo jaroon bu baax lay bu baax lay ana mu aywa jaajëf non jaajëf jaajëf ku ci nekk di ci jàngat muy Wally Ballago Seck fu mu gis ku nga xamante ni macha allah nit la bu reconnaissant nit la boo xamante ni nit ku bëgg yes yes yes